fas yéene delloowaat kàddu bi ak làmb yi xam ngeen di amee am solo. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di ziar di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi alxames maanaam 14 octobre. 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 14 octobre 2021 dañu ñëw ak ci yëglikaay sunu lamb leen kay dooreeti yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk lëm ca xëy fasalati mooy combat Balla kay numéro 2 ak Bombardier yëglikaay ba nag daa ñëw ci ñoom ñaar dina xam ne daal Balla ci côté ndaw ga ak la nga xam ne ni moom mooy foor ga ci wàllum physique yëglikaay ba daal nee na Balla est-ce que dafa war a maanaam xeeb li nga xam ne ni moom moo di kon poids Bombardier yëglikaay bi di suñu làmb daal moo xëy tey dinu wax lu mel ne ki noonu yemu ca mu ngi nuy xamal tamit ne Balla gay numéro 2 dem na démb nag maanaam fa nga xam ne moo de ca INSEPS ga ca Paris la France yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu ko wax beneen combat boo xam ni daal ay waxi rapport ak maanaam dat bañ ko jàppoon ñu dàqoog yu mel ni ki noonu que ko tëgg nag moom di Pape Thialis Faye génn na tey fees ca xët wu njëkku yëglikaay bi di sunu làmb taxaw ak ñaari mbër ya muy Tafatine ak Boy Niang Pape Thialis Faye ne na loolu ñi koy wax ñoom la concerné waaye man mi tëgg sama làmb moom Pape Thialis ne na bu bëggee dégg-dégg ñaari mbër yi nañu waaj te pare ndax nag le 19 décembre incha allahu rabbi buñ ca yeggee boobu dat moom confirmé Tafatine ak booy Niang di bëre Pape Thialis Faye moo xëy tey wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii wala koo xam ne mbir moomu moom itam bokk na ca wala mu concerné ko wala ñaari mbër ya mu yor ca kenn muy Elas Thioune di aw Tafatine moom daal la mu xëy xamle daal daa mel ni waxi Thialis jooja daal loolu la xëy tey di ko dëggal dana Pape Thialis Faye ci boppam maanaam daal moom moo confirmé datub le 19 décembre ba daal bu amee confirmation dana Pape Thialis Faye confirmé na ko kon loolu leer la ki nga xam ne moom ab datam yegg si na ba pare muy Assane Ndiaye borom bool production le 24 octobre yëg li kaay ba ne na soo bëggee dégg-dégg moom Assane daal la mu xamle daal ne na amateur yi la bëgg a jox benn bés boo xam ne ca Ibamar Diop maanaam deete su ko fàtte ci làmb mu war a jox ci diggante général Malika ak ka nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moo di Fils de la yëglikaay ba xëy na tey dikk di nu wax lu mel ni ki noonu moom Fils de moo moomu nu wax nag géejawaay gi nga xam ne fa la dëkk fa la école lit mor fadam sancoo wala boog fa la nekk yëglikaay ba nag xëy na nu xamal ne dimanche ji nu génne day ñoom na nu ubbee saison bi neex na lool waa école lit mor fadam ndax ñetti combat yi ñu jot am yëpp ñett yëpp dañu koo gañe moo xam bébé guy gi diggante ak pokola moo daan ñu ne déet ne waay Bou Siteu daan Malick Ndiaye 37 fu ñu ne fa la ñu yem Eumeu Sène Junior ñëw itam daan ka nga xam ne moo di Grand Mbagnick yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey leneen loo xam ne yëglikaay bi mu nu koy wax mu lu jëm ci wàllum ay taxi yi nga xam ne nii daal moom moo tënk làmb ji mel ni ki nag ab séminaire daal national la commencé la 20 jàpp vingt 21 octobre daal moo naam daal bu bëggee dégg dëgg waras na ko caa amal yëglikaay bi mu xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noon moom sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii daal moom moo di sunu làmb mu ngi nuy xëy daal di xamal ne maanaam ka nga xam ne nii moom moo di Liss njaago xale boobu dëkk ci jàmm gën daal fi mu nekk nii daal yëglikaay ba xëy na dikk ci moom ak maanam popularité am ak itam na mu dikke ci làmb physique ba nga xam ne moom la amee ak na muy waxe maanaam communication yëglikaay bi nag lam ca gis daal ne na boo bëggee dégg dëgg daal tànki setta daal la xele ba topp maanaam na si te ñëwoon ci làmb daal maanaam moom rek lay fa li li nga xam ne ni ñoom ñoo di waa làmb maanaam liis daal boo bëggee dëgg dëgg daal daa mel ni si tabu démb ba moo dikkaat tey ci le làmb ji yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu wax xale jàmm gën booba ak na nga xam ne ni noonu la mel bu nu continuer ba tey yëglekaay ba dañuy dem ca tuus ya yëglikaay ba mu nuy xam ne daal ñoo xam ne nii daal maanaam war na la fàttaliku delloo leen njukkal ci làmb muy Dudu Seck ak nga xam ne moo di ñas ñaar lañ ñoo xam ne ñu amoon importance lañ te la nga xam ne nii moom moo di géewu làmb ji yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu ko wax mel ni kon ñoom ñaar ñooñu nga xam ne dëddu nañ wuy ju seen borom yal na leen buur bi yàlla jéggal ak bépp doomu adama boo xam ne yaa ngi ci suuf barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay te su làmb moo fi xëy ñëw lam nu andil ci xëtam mu njëkk bu ngeen ko xoolee xëtam mu njëkk nag tey Balla Gaye numéro 2 moo xëy gën caa fés ak ka nga xam ne moom moo di Bombardier mel ni ki nag yëglikaay ba tey daal moo xëy dikkati ci boobu combat physique ci côté ka nga xam ne ni moom moo di Balla xaleel ga ak yu mel ni ki noonu maanaam yëglikaay bi mel ni ku sampub laaj kon di laaj ndax Balla war na mën a xeeb Bombardier su sestimi ko maanaam ci côté poids bi yëglikaay ba loolu la xëy wax mu mel ni que nag loolu daal liñ ci xam mooy Balla moom moo gën a féete xale Bombardier moom mujj dugg ci làmb yaa ngi dégg loolu lépp am na waaye nag dañoo bëre woon ñoom ñaar ba ñu bëree ñoom ñaar Bombardier da koo daanoon te defe naa nag kon yaa ça veut dire que foofu affaire xale ak mag dootu fa compter li ma gën mooy ñoom ñaar seen komba ku gën a pare ci bés ba physiquement mentalement ah mystique tamit da cay bokk xalaat naa ne yaa gagné boobu bés incha allah bu bu yàlla ànd ak yow parce tamit yooyu yëpp sax mën nga koo ga pare ñëw yàlla miy dogal dogal leneen waaye daal xam naa man boog man Babacar bu fekkente ne may am yaakaar dama naan ñoom ñaar ku ci gën a pare mën na am boobu bés nga moom ko dafa fekk ne nag ñoom ñaar magante nañu parce que loolu moo tax nit ñi di xalaat ci côté jeunesse ak yu mel ni ki doon ndax Balla xam naa la ko daloon ca combat bu njëkk ba dina fexe fexe fexe ba loolu dootu ko dal wala du ko daal ndax la tax mooy combat bu njëkk ba après bi mu jeexee amoon na ay quelques détails ay wax Balla dafa rëddi woon jàppal bàyyi ma ngi dégg wax jooju di dem ba benn moment man dem naa fi Mbour dëkk Bombardier micro mu ne moom bi ko nit ñiy wax loolu intéressé wu kon ko mais bi mu déggee Balla wax ko nag la jàpp ne kon kii ah maanaam moom daa jàpp ne dafa feebar Bombardier nag kon léegi li muy ñaan mooy bis bu nuy bëriwaat yal na wér péng ñëw comme suñu combat taxaw na mu ne ma su wéree ñëw su keroogee lay du am. kon nag lim leen di liñ leen di ñaanal mooy yàlla na wér am ci yéen ñëpp am ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo doomu aadama yi rawatina amateuru làmb yi baar bi soufflé ak ka tëgg seen combat sunu père Gaston ñu xool fan la waa nit di mujj ay bëtam moo tax nag daa mel ni Balla itam euh, at yooyu ñuy wax wala gën a féete xale ga daa mel ni moom jàpp ko ndax li tax jàpp ko mooy ku ne xam na ne bu solo solo na fa dàllam dem INSEPS ga ca France far ñu reporté combat yi pare pour ñëwoon ñu bëri. yaa ngi dégg léegi biñ ko dàqaatee yàlla dogal ci diggante bi am lu fi xew way juróom bu góor génn fi àddina yàlla na ko yàlla jégal taxare ko na balla euh, dund loolu ak euh, sénégalais yi parce que ku ne gis nañu ko ci soutenir bi ñu toogaatee nag ah ba xam naa mbir yépp dal balla dem mu salaatu dallam delluwaat INSEP sa ga ca France di Paris bu mel ni kon la kuy wax ne Bombardier mag la wala ngay wax ne Bombardier poids mag nangam balla moom daa mel ni yëpp tegu gisu ko balla li mu gis mooy liggéey rek waaw man daal loolu laa gis ñoom ñaari mbëri daal dama gëm ne euh, wax dëgg yàlla ah euh, xalaat naa la dinañ gis combat bu neex yàlla nañ ko fekkee te tal ko parce que tamit euh, ñoom ñaar ku ci bëgg a daan sa moroom faw nga liggéey bul xeeb dara ci combat bi ndax nag loo ci xeeb rek mu gaañ la man laa gëm parce que olof a koy faral di wax maanaam di nga xeebu xal mu ñëw lakk sa dàgga loolu nag moo tax combat bii moom du combat bu ñuy bàyyi moo si sedd maanaam wala luy jàll au contraire da ngay liggéey côté yépp nag da nga ciy bàyyi xel loolu la demee beneen combat boo xam ne tamit noonu bii amee enjeu noonu la amee enjeu muy tafaatin ak Boy Niang li leen wutale nag ñaar ñee mës nañoo bëre muy Balla ak Bombardier mais ñaar ñi mësuñoo bëre bii combat jànq la c'est la première fois ñuy bëre tafaatin Boy Niang bu ngeen gisee noonu photo bi gis ngeen Pape Thialis fay taxaw ñaari mbëri taxaw Thialis di dëggal ne kon combat bi ñu doon xalaat ay waxu report Pape Thialis fay na loolu moom amu ci sunu làmb moo nu indil boobu xibaar combat bi le 19 décembre ñaari mbëri dinañu sëgg bëre loolu yàlla na nekk dëgg te yàlla nañ ca yegg ak jàmm parce que tamit combat bu ñëpp soxla la foofu tamit combat lu méttee méttee ngi foofu ndax li tax mooy tafaatin gëjoon na bëri su ma jumlee est-ce que du 2018 la gëj bi mu fi daane Yékini Junior boobu ba tey bu bëri fële ca amru bëri Boy Niang tamit bëre bi mu bëree ak ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers ci arène nationale ñàkkoon boobu kon ñoom ñaar itam fi ñu jëm fu metti la ndax tafaatin ci ndam la jóge gëj a bëri Boy Niang jóge ci victoire bu nga xam ne nii maanaam Euh, recours moo ko may Lac de Guiers numéro de parce que ba ñuy jógee ca géew ba arbitre euh, match nul la joxe woon maanaam kenn gañewul waaye nag Lac de Guiers numéro 2 daa jàpp ne daan na booy Niang ba mu dugalee recours tamit recours booba moo ko jox victoire kon looloo wan looloo waral booy Niang ñu ne ci défaite la nekk waaye loo ci mën a dégg combat la boo xam ne nii ñoom ñaar tam xeebante bu mu ci am de de ku ci xeeb sa morom rek mën na la indi lay jafe-jafe parce que ñu naan Tapha Tine moo ëpp doole Boy Niang bu ko jàppee da koy lem man dama naan nañ def très attention ci loolu parce que booy Niang mbër mu sérieux la ci li ma gis mu di ko def ku fonk li muy def la ku itam ku am encadrement technique la te itam ku am stratégie de combat la mbër bu mel noonu nag te di xale am lu mu bëgg ah xam ne combat bii mu jëm am na lu bëri lu mu koy ubbilaat ndax signé yeneen contrat te bëgg na nekk roi des arènes kon kooku ça veut dire que ku ko am am nga adversaire de moom Boy Niang tamit buñ ko nee da nga ko dàq bëri wala nangam ndax wax yooyu da nga koy faral dégg ci mbedd mi yooyu tamit ku ko ci dugal mën nga koo nax ndax Tapha Tine dafa mën a bëree ndax li tax mooy dama ko seetaan mu bëree mbapat fa nga xam ne ni moom moo di Stade Assane ma daan leen fa seetaan daan ko fekk géej muy contact boobu mu ngi nekk ndaw boobu kenn xamagu ko ci làmb mu bëre tamit fii ci arène bi ñu gis technique yi mu fi bëree diggante ak El Hadj Diouf fële ca Iba Mar Diop kera ñëpp foogoon nañ ne combat ba jeex na mais gis nga na mu ak moom parce que kon maa ngi noonu bu rëy rëy rëy ba tey bu ñu continuer Assane Ndiaye borom bool production gis ngeen ko noonu ak drapeau Sénégal ah lii nag eh, coupe du monde ba la woon ca Russie yaakaar naa ne ah boobu foofu la woon Assane mu ngi dikk amateur lu neex le 24 octobre yàlla nañ ci yegg te tal ko parce que bés la boo xam ne bés bu mag la na a doon diggante général Malika ak fils de Balla muy bés bu nar a rëy waaw loolu defe naa ne. combat enjeu la combat bu yàggu yoon la waaye incha allah rabbi ñu ngi ñaan yàlla rek le 24 octobre jot bu ñu bëree ko que le meilleur waaye nag xam naa ne daal combat bu am enjeu la bu teel a tàng ndax bëri ki dem ku signa ñun ñu demoon ci signature ba xam na ne ñaar ñii moom soxlante nañ te duñu mayante dara ndax wante nañ ay baat yoo xam ne nii ah doy na waar kulli baat yu doy doy waar sax waaye nag loolu mooy làmba waaw waaw waaw loolu daal làmb la euh, ba tey mu mel ni làmb yi bi ubbee am na ñoo xam ne moom teel nañoo wane seen bopp muy waa école nit Mor Fadam gis nga leen ñu wan ñu ci aw photo ñu ngi noonu ci seen école daa mel ni ker sortie yi ñu def ci bésu rent DKR bi 3 combats 3 victoire bu Siteu dafa gagné Malick Ndiaye 37 fu bébé guy gi gagné Pokola bu école nit Mor Fadam ki nga xam ne nii wala boog Pokola bu école nit Falaye Balde waaw ki nga xam ne mooy bébé guy ki moo ko gagné ki nga xam ne moo di Eumeu Sène senior ba tey nekk école nit Mor Fadam gagné waat nekk école Boy Niang mu mel ni kon kera boo xoolee Pikine la woon ak Géejawaay Pikine am trois victoires ci kaw Géejawaay wala Géejawaay am trois victoires ci kaw Pikine gars yi ngeen baal ma Géejawaay moo am trois victoires ci kaw Pikine kera ndax Malick Ndiaye 37 fu ci Eumeu Sène la ne taay si nga Pikine la Grand Mbagnick école Boy Niang ne Pikine la Pokola école Falaye Baldé la ne Pikine la kon loolu lépp Pikine la woon ñëw jàmmaar la ko waa école Mor bi nga xam ne ñu ngi ci Géejawaay ah kon di leen félicité waaye que lutte Mor di encouragé waa Pikine waaye dina ndax nag ab tàmbali la ndax nag saison bi ah daa gudd de waaw dafa gudd waaw waaye daal ker def nañu résultat bu am am solo euh, ay réforme ci lu jëm ci taxi CNC yi tamit gis ngeen président CNC ngi noonu ak maskam bira seen mu mel ni kon loolu ñu ngi koy xalaat maanaam war a waras naa waras na kaa def bokk entre le 20 ba le 21 octobre waaw xam naa daal euh, pour xoolaat mbir yi la waaw muy lu jar a bàyyi xel xam naa nag loolu li ñu ci jublu mooy pour bëgg affaire yi jaar fi mu war a jaar rek waaw loolu mooy li ci ne waaw ba tey bu nu continuer Laurent Ndiago xam ngeen ko xale bi xew si jamono dama naan rek combat rent DKR yi dama ne man Babacar communication bu ko amee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bari ñëpp xam bàyyi combat yooyu xel Laurent la ak Boussita def nañ ci communication bu am doole ñaari mbër yooyu te pourtant boo leen dee xool ci dayo nekkuñu ay mbër yoo xam ne ay séant lañu non non ay xale lañ mais nag bon nit ki di nga nekk ci biir mbir doon xale am noo mel ci sa koñ nit ñi bëgg leen loolu moo dal Bou Siteu moo dal Laurent Ndiago mais Laurent yëglikaay bi moo ñu xamal ne tànk yi Siteu awoon bu mu ñëw ci làmb tànk yooyu la gis mu aw loolu nag defe naa du ñu bett parce que Siteu tamit boo bëggee dëgg-dëgg ah, euh, jàmm gën yàgg naa am ay mbër waaye wax dëgg yàlla Siteu nag am na ci taxawaay boo xam ne nii wala mel na ci noo xam ne wala fësal na ko nu fësal boo xam ne nii boo bu dee dëgg rek kay dëgg moom gisuñu woon ko bu njëkk donte ay mbër daan na fa am waaye nag bi Siteu ñëwee nag ah ci lañ xam ne nag kon jàmm gën mi fiefu làmb la mu inspiré ay booy yu baree baree baree bare Siteu ak ba muy ñëw si làmb ak na mu doon doxale bindi bi ah dafa naa kera Iba Mar Diop ba mu fay bëri ak ki nga xam ne nii moom moo di eh, Malaw Seras lu doyan ci mbooloo te mbooloo moom ba tey gis nga bërki dem bi muy def open press am bi ah diggante ak Papa Sow waaye open press bi mu joto def keroog jàmm gën ni mu mel kon loraan Ndiago defe naa ne dafa ñëw rek moom itam fekk ay royukaayam muy ñoom sitta waaye mu magam tamit si Ndiago noonu la mel ci popularité kon loraan li ñu koy wax rek ah ah bu góorgóorloo làmba làmba làmba ngi ci kanam làmba kenn moom ko liggéey rek waa dégg naa ko nag nee na Modou la wala Balla Gaye Laurent moom ñooñu lay défier moom ne ñooñu la soxla ma ne ko wax nga dëgg nit day rëy bët waaw parce que nag bëreeg Modou Lo ak Balla Gaye ndam la maay bëreeg Modou wala maay bëreeg la wala Eumeu Sène mbaa Gris Bordeaux wala booy Niang mbaa Ama ah wala Tapha Tine mbaa Lac de Guiers ah fi mu nekk nii ku ni ñooñu ku nekk bëgg nga bëreeg ñoom kon defe naa Laurent fëngal fangalaal foofu la waaye xam naa nag moom mënu go foofu moom fi mu nekk nii de su la jox seeni combat da nga liggéey ba ca kanam waaye nag am nga droit ne kat pataas ma gënal ñam bi waaye man daal xam naa ne loo ci mën a dégg xale bu saf xorom nga bu nit ñi bëgg nga macha allah waaw di lu am am solo euh, tey nag loolu moo fi dikkoon kon ci yëglikaay di leen balu àq bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers Equivox TV xulle maa ngi lay jaar yaa newoon si caméra bi montage bi aussitôt di nuyu ñi nga xam ne nii ñu suñ soppe yi Adama Ndiaye Italie ah euh, Arona Camara maa ngi koy bégee Ah, fan si club équipe su Babacar gars yi yëpp ñoom na Karmar ñoom Adama Ndiaye ñoom Awa Diop hmm? ñoom ñëpp ñoom Jili ndaa baay Jili ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee awuma seen fay di nuyu tamit Balla Gaye Portugal di nuyu daam Diop Afrique du Sud Dame maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sud Afrique yëpp waa sama goro foofu la nekk Afrique du Sud maa ngi koy nuyu sëñ Assane Ndiaye maa ngi koy jaar bu baax a baax a baax di nuyu ay frère am seexam euh, Ousseynou moom nga xanaa mu ngi Italie ñoom Malick ñu ngi Turquie frère waaw ñooñu ay papaay sama soxna lañu maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan jàmm Sénégal di ñaan yàlla gàmm gi nga xam ne mooy mawlidu nabi ñu dëgmal ko yàlla nañ ci dem ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin lépp lu nga xam ne moom lañ ci ñaan yàlla nañu ko yàlla jotalal ci ay ngëneel ak i xéewal barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nag yaakaar naa guddi yonente bi moom ku koy taxawee sam xel war naa dal te itam war ngaa yaakaar jàmm war ngaa yaakaar ndimbal wa sam xelit war naa gën a dal bu baax a baax a baax ndax nag yàlla ne na ko lu ma bind yaa tax kon nabil Moustapha kenn du moom di nuyu waa Tiwaawoon waa Mirina Baay waa Lewna waa Ceneba waa Touba waa Njaasaan ah bu ma limee dinaa jum fépp fu ñu koy màggale rek maa ngi ñaan ña ko fay màggale njaareem ah foofu tamit dañ ko fay taxawee taxawaay bu am solo ba Masaalikul Jinaan gi kon yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ah tamit waa sand course Moustarchidine maa ngi leen di ziara bu baax a baax di nuyu seen guide boobu seen Moustapha si moom tamit gis nañ ni mu koy taxawoo ah kon daal nuyu xalifa yi ne ci réew mi yépp wax ne Sénégal réewum teraanga la waaye réewum ñaan la te yàlla ne woon ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen kon yàlla na yàlla nangu ñaan ni ci barke Mawlidu Nabi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu suba